Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf Ousmane Sonko ma ngay waajal ay député am réew mi quotidien mooy yëgal tey nii ñi ñu fal bees ci élection législative yi bokk ci parti Pastef ña nga lëlu woon ci diwaanu Mbour ci njeexital ay bés yi Ousmane Sonko mi jiite woon ndaje bi nag li mu digle mooy beneen assemblée nationale bu bees ak doxalin yu bees yi nga xamante ne mën nañ koo xaar ci fukk ak juróomeelu législature bi l'info yéene kay di ko feel wàllu nekkoon majorité parlementaire bi ni ki démb dañu leen doon dooleel Ousmane Sonko ci boppam démb mel na ni ku jox ngànnaay ñi suñu naataango yi duppee ay soldats du pouvoir yéenekaay bi di ci fësal kàdduk njiital fa mi yéegle ni assemblée bi ci boppam war naa yéegalaat niveau yi waaye tamit am taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci moom jëmale ko ci askan wi lii moo tax yor-yor bi ne démb daal Ousmane Sonko ab cour magistral la daal di jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yu bees yi ngir taxawaay bi nga xamante ne moom la Sénégal di xaar ci ñoom moom Sonko li muy xaar ci député Pastef yi mu ngi ci 24 heures kàddug tête de liste nationale bu Pastef ci kanamu député yu ñu fal bees mooy ñu nekkal fa askanu Sénégal laata ñu fay nekkal beneen njiit njiitu réew mi ci l'Observateur ñu ngi xamal ni mën naa jàpp lu ko dale ci alarba gi bis bi nga xamante ne dinañ ko installé assemblée bu bees bi ci yéenekaay bi Ousmane Sonko di sàkku nag ñu baral yëf yi bu ko defee ñu mën a voté loi de finances initiale fii ak 31 décembre bi ñu dëgmal installation assemblée bi tamit commission yi ñu war a samp ak vote budget bi le soleil yéenekaay ci la àddu di wax ci yan anam la yëf yi war a tëree gannaaw proclamation officielle résultat yi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel war a def processus installation fukk ak juróomeelu législature yi war nañ ko baral ngir fexe kon ba vot loi de finances 2025 bi daa di mën a yemb Ousmane Sonko ci kanamu député Pastef yi nee na kon assemblée bi war naa jubalewaat askanu Sénégal ak organe parlementaire bi ci boppam statut chef de l'opposition bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien mu ñuy xamal ni moom Ousmane Sonko actionné na assemblée bi ci boppam ndax nee na député yi ñoom ñoo war a déterminer li nga xamante ne moom mooy statut chef de l'opposition boobee ndax ci biir assemblée nationale ci le débat politique bi war a wéy gannaaw élection yu ñu amal ba noppi gannaaw nag élection yi tax ba ñu fal député yu bokk ci fukk ak juróomeelu législature bi les échos di dikkaat ak seeni nataal di ñu xamal ni assemblée bi daal mën nañ fee gis ay métier waaye tamit ay at yu wute bi di xayma moyenne d'âge bi ci ñeent fukk ak juróom-ñaari at ci biir assemblée bu bees bi nag nee ñu jàngalekat yi ñoo fa war a ëpp ndax téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñaar ya ay jàngalekat lañu ñiy topp ci ñoom di ay entrepreneur yi nga xamante ne téeméer boo jël ñaar fukk ak ñaar ya ci la ñuy yëngu Anne Marie Yacine Tine bu Pastef moo war a nekk Benjamin bi maanaam ki nga xamante ne moo fa gën a niwle at ndax mu ngi toll rek ci ñaar fukk ak juróom benn àllkan nag moo war a nekk doyen d'âge bi ndax làkk na lu toll ci juróom-ñett fukki at ak Macky boo moytul ñu làq leen jant bi Walf Quotidien mi sulli mbiram traque au bien malaki yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ca biti réew nee na nag li muy wone mooy clan Macky Sall bi ci boppam boo moytul dina yëngu ci ay fan yi ñu dëgmal yëngu yi sax ci wàllub yoon tàmbale na ba noppi ndax L'As Quotidien mu ngi ñuy xamal ni kii di Adama gay ak Moustapha Diakhaté ñu ngi leen denc gardaaw yi tey ji nag ci altine gi la ñu war a janoo ak procureur yéenekaay bi tamit di dikkaat ci li nga xamante ne moom la ñu teg loxo Samuel Sarr l'observateur sax ci mbiram Samuel Sarr googe la xëy niki tey ji di xam ne ni jëwriñ woon daal jamono ji mu ngi ci guddi gu bër sëtegul yéenekaay bi di ci yëgle ni directeur général bu lekk Papa Toby Gueye teewlu nañ ko ay plainte yi tamit am na jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy Maxasi Abdoulaye Dia bu Senico ak Tayiru Mbay mi nga xamante ne moo teewal cabinet Massar yéenekaay groupe Futur Média bi di ñu xamal ni ay bailleurs yi tamit yi bawoo ca Dubaay daañu dikk ci Ndakaaru niki tey ji waaye seen ndajeek jëwriñ ju dénk wàllub énergie ak finance ba léegi yàggul le quotidien yéene kaay di àddu ci li mu duppee bataille des actionnaires ndax nee daal dafa mel ni ndox la ñu tëmbal ci gaz bu West African Energy ndax Samuel Sarr mi nga xamante ne moo nga ca garde à vue ca gendarmerie ay plainte tamit ñu nemmeeku diggante directeur général ba ak ki nga xamante ne moo fa nekkoon PCA moo tax sax source a gis ni plainte contre plainte la ñu nemmeeku ci coowal présumé détournement ca West African Energy ca West African Energy boobee libération novembre 2023 ba léegi ay actionnaire yu nekk ci consortium bi daal di xajaloo ñaar ci xeex bu taratar la ñu nekk Samuel Sarr mi nga xamante ne am na fa 15 pour cent moom section de recherche teg na ko loxo gannaaw plainte bi nga xamante ne importateur ceeb bi di Moustapha Ndiaye mi am tamit 15 pour cent moom moo ko ngàll ci ndodam ndax ay financement yi nga xamante ne firndeelu ko maanaam justifié wu ko te ñu xayma ko ci lu ëpp juróom ñetti milliards moom moo ko waral ay milliards moo waral ba concessionnaire yëngu ci wàllu nettoiement soobuwaat ci ab grève wa Vox Populi mi ciy dikkaat di xam ne ni kon xeex bi tàmbaleyaat na ci lu soxal mbalit mi ndax fukk ak juróom dina tax ba moom moyul xar kanamu ndakaaru soppeeku juróomi fan a ngi ni ñu yëngu ci wàllu mbalit mi banque seen loxo nee ñu tàyyu nañu gannaaw bor bi nga xamante ne état moo leen ko yoreel ay at a ngi nii ay weer a ngi ni ñu doon ko waajal démb mu mujj am muy combat diggante Modou ak ak réew mi Sport mi ci àddu nee na njiital Rock Énergie daal ci ay la mujj ngir am ndam ci gonek Lansar gi ci les échos mi addu ci combat royal boobu di xam ne ni kon Modou dëgg la naam ba tey mooy wéy di toog ci donkaasi gi waaye démb daal Siteu tamit wane na boppam Siteu ci biir yéenekaay bi sax ne dina déposer ab recours ca seen CNG ngir ñu daal di koy jox ab ndamam ndam la Modou Lo am démb waaye Walf Quotidien nee na yëf yi yombuloon benn yoon ci xarañ ndax mujj gi ci ay avertissement la sukkandiku doomu parcelle bi sax ñaari yoon démb goneg lan saar gi yóbbu na ko ca ardo yéenekaay bi gis ni daal Siteu démb am na combat référence gannaaw combat yi ca arène nationale enquête gis na ni daal askan wi ci njàqare dëgg la ñuy nekk li koy waral mooy xeetub agression ak càcc gi nga xamante ne daañu ko nemmeeku ci ndakaaru rawatina ci banlieue bi moo ne de ñetti fan laata combat bu démb bi ay alerte nemmeekoo nañ ko ci réseau sociaux yi takk der tamit jël seen matukaay ngir wattu kaaraange askan wi lu wër arène nationale waaye teewul sàmbabo la jël